ñu gis na fan ni benn video barkaati temb bu toj dëkk bi Balla tiim liyaasu xaalis yu bari naan nekk roi yor xaalis moo ko gën vidéo bi créé ay polémique est-ce que regretté woo ko tey non ay euh, je pense àdduna lépp loo gis rek donc man ba ma koy def jàppee ma ko dara pour ñaawlu ma ci kenn xam nga man képp ku ma xam nag muy Balla Gaye numéro 2 xamee nañ ma ci ay kaf xamee nañ ma ci modeste xamee leen ma ci yar ak teggeen ak fulla ak fayda jëlee ma ko neneen foo laa ci jëlee woon mais jëluma ci pour kokkali nit maa ngi ciy dégg na version bu ne mais bu ko ni ñi jàppee version ba xamante ne bu bon la wala lu positif dañ koy jàppee lu mais buñ ko jëlee lu négatif képp ku nga xamante ne war nga wax nga ci loo xam ne yaa ngi ci war a waroo ko wax rek yaa ngi ci bàkkaaru yaa ngi ci wax loo xamante ne waroo ko wax supporteru Balla Gaye numéro 2 moo gën a sonn ci làmb kon ni Balla Gaye dee sonnee ci làmb ci mbër supporteru Balla Gaye de noonu lañ sonni ci làmb maa ngi leen jéggalu su supporter ak ñu ma bëgg ak ñi nga xamante ne fu ma deewee ñu dee fa fu ma xamee ñu xam fa ñu ñu lay jéggalu mais pour wax ak ñi nga xamante ne féetewuñu ak man jëlewuma ci dara pour def ci lu ñaaw wala lu bon taluma ko non taluma ko foo ma ci dugal donc du loo xamante ne sax maako moom bokk faf donc waaw kaf loo ma ci dugal ak foo